Serigne euh, Khadim Diouf ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw ñu ngi leen di fay bu baax. ngay administrateur euh, Touba ca kanam. Euh, tey mhm. jii ñu gis ne foofa ca Touba li di mbënd mi sonal na leen lool ba mu am ñu ñàkk seen bakkan ci mbir mi d'abord waxu mbënd mi ca Touba du atum ren rek daanaka at yu mujj yi chaque année ñu dégg ko noo gisee li ni mel. waaw ni ñu ko gisee rek mooy d'abord avant tout ñu ngi masawu ñi ci am ay mbokk yu ci wàññeeku mhm. waaye di sant yàlla bu baax rek euh, gannaaw boo xamee ne euh, ndox mi taxaw bi euh, xawoon bi xawoon naa taxaw ab diir sëñ Muntaxa xalif général des Mourides mhm. sàkku ci mbokku taalibe yëpp ñu ñaan ñaan yooyu nag xam naa moo tax ba taw bi ba baawaan lool rek ci sant yàlla mm-hmm. Touba nag ku xam uh, configuration géographique bi mu yore nga xam ne am na ci gox yu bari yoo xam ne ay cuvette la mm-hmm. ci dëkk bi bindoo am na ci barab yoo xam ne ay barabu ndox la mm-hmm. waaye jamono dafa màgg ba barab yooyu yëpp nit ñi dëkk ci moo tax bu nawet ñëwee uh, du nawetu ren bi rek waaye bari na lu muy lu muy demee noonu ndox mi di bari lool ren nag xam naa am nay conséquence ànd naag conséquence euh, yoo yu xaw a doy waar waaye lépp rek dañ ci ànd rek di sant yàlla rek xam ne lu mu def noonu la tey yéen waa Touba ca kanam mu am ay sinistre yi nga xam ne ñu ngi leen di joxoñ baaraam tuuma nee nañu vingt branchement yi nga xam ne moom ngeen def ci réseau bi moom moo jub ci bassin bu Kër Ña euh, moo tax pomp bi euh, tey nekk en panne lu ngeen am pour tontu ci tuuma waaw xam nga ñuy wax moom daanaka léeg-léeg ñu ci bëri sax xamuñ li ñuy wax. Hmm. ndax vingt branchement yu ñuy wax déjà du bokkut tak li am ce qu'il faut retenir rek li ñu war a jàpp ci turu vingt branchement yooyu li indi euh, ñu tudd vingt points du ay branchement vingt points la yoo xam ne nii gouverneur Touba ak autorité yëpp ñoo dajaloo daaw ne kat yi point bu ñu fexee ba defar ko ba mel na mu war a mel lu jëm ci wàllu ndox mi taataa yi sonal askan wi dana tëj. ba ñu toogee waxtaan ci autorité yëpp toog Touba ja kanam moom vingt points la jëloon ne dana fexe mu saafaraw mm-hmm. euh, quatre points astafurlah quatre points la jëloon ne dana fexe mu saafaraw mm-hmm. ci quatre points yooyu mën nañ cee tudd quartier Pencum Mbay Wadd boo fa rombee bu tawee ba def vingt quatre heures rek boo fa rombee doo fa gis ndox mm-hmm. Euh, shell bi nga xam ne station Shell bi nga xam ne da daan stagné kenn du mën a jàll oto yeeg yëpp di teggi foofu it euh, Touba kanam defar na ko mhm. ba ku fa romb bu tawee ba def vingt quatre heures dootoo fa gis ñor mhm. tookóor ba doonoon point bu doy waar bu jaaxaloon ñëpp moom itamit ñu defar ko ba mel ni mu a mel ak beneen point bi nekk marché Ocass mhm. yooyu tamit bi ko Touba ca kanam di def daf cee am autorisation ONAS ONAS moo ko jox ndigal nekkoon na branché eh, na def na ko raccordé ak bassin wu Kër Ñang mm-hmm. noonu la ci Touba ca kanam doxee mm-hmm. te it mu doon loo xam ne nag biñ koy def DG wu ONAS ñëw na ba visiter site yëpp rafetlu ko xam ne liggéey bi Touba ca kanam di la mm-hmm. autorités yi ci dëkk bi it ñoom ñëpp rafetlu nañ ko muy maire a nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi yëpp kon di di waxaat ne rek Touba ca kanam amul responsabilité ci loo branchement yooyu ñuy wax it matut vingt branchement quatre la te quatre yooyu yëpp ci ndigalal ONAS lañ ko defee mhm. di leeral tamit ne bassin Kër Niang euh, il faut ñu xam ne yàgg na fi bañ koy defar booba euh, envergure bi fi am amu ko woon mhm. te bu fekkee ne ONAS joxe na ndigal ne mën nga cee mën ngeen yi def ko ca mhm. en réalité waroon naa jiital matukaay yi war a tax ba bu ndox ma ñëwee mën faa dem waaye nag loolu moom amu ci loolu nag ab jafe-jafe la. tey puits d'infiltration bi ñuy wax dafa bokk ci seen i travaux. waaw xam nga daf ci am piste yoo xam ne nii bañ koy defar daanaka ay déeg la woon. Mhm. déeg yooyu ñu fexe ba euh, defee ko noo xam ne ay piste lañ ko def léegi. Mhm. ba léegi dem beeg dikk bi yomb. Mhm. léegi nag euh, pour nga def système de canalisation boo xam ne nii day tax ndox mi mën a dem. day doon lu coûteux te day jël day xaw a day xaw a c'est dans le long terme léegi bi ñu xalaatee spécialiste yëpp gis ne def fa ay puits moo gën puits d'infiltration yooyu nag fa ndox mi war a aw nag daal di dem mhm. puits yooyu sax DG wu ONAS ñëw na ba visiter ko ba rafetlu ko lool te it euh, vidéo yi ak archive yi yëpp mi ngi ñun mhm. ñu teg ko ci def ko ci defin bu bu tegu ci xam-xam te it di leeral ne du du Touba ca kanam moo ko jëlal boppam di ko def déedéet Touba ca kanam dafa signé ay contrat ak ay entreprise hmm. entreprise yooyu ñoo yore puits d'infiltration yi di ko liggéey hmm. Touba ca kanam di leen fay ca biir clause yi ci biir contrat ba lépp lu jëm ci wàllu sécurité bi ba gardien ba ko war di surveiller Touba ca kanam daf ko santoon entreprise yi ne leen na ngeen fexe ba sécurité beeg lépp ngeen veillé ci hmm. kon loolu yëpp ngir bëgg teg suñuy mbir ci yoon teg ko ci xam-xam ba lépp lu ñëw Touba ca kanam mën cee raxasu ba set wicc kenn du ko ci mën a jam ci lenn ndax contrat yi mi ngeeg ñun te it euh, yaakaar naa ne ku ci def investigation yu wóor di nga xam ne amu ci lenn lu Touba ca kanam def te tegu ko ci xam-xam. bu ma la déggee ngay wax dafa mel ni yéen pare ngeen à un éventuel euh, procès ndax ñu ngi ciy tudd benn ndaw bu am euh, juróomi at ak ñett bu nga xam ne nee nañ dafa glissé jëm ci boobu le puits d'infiltration voilà. non no wax procès moom day daal di doon sax <laughs> njuumte hmm. ndax procès moom mu ne su ko tudd xanaa kay li li jara tudd rek mooy leeral ba ñëpp xam fan la ci responsabilité Touba ca kanam situé hmm. ci jafe-jafe yooyu hmm. xale boobu ñu ci euh, tudd euh, xam nga protection yi ñu waroon a def muy ay balise ak lépp luy aar barab ya ña ko waroon a def yore entreprise sax def nañ ko mais bu tawee ànd ak ngelaw loolu mën naa naaw dëñ te it bépp liggéey buy am tamit dañuy soraale catastrophe naturel il y ce qu'on appelle la le cas de force majeure bu ñëwee lépp loo fa defoon ngelaw li mën na koo dindi su boobaa nag su waajur yi wut seen njaboot yu mel ni day daal di mën a am mhm. te du boobaa pour nga joxoon ci baaraam nit dana jafe mhm. ndax bu fekkee ne ku ci la nga war a def def nga ko nature bi ñëw dindi ko nature boo xam ne bu ko neexee de déjjati garab su ko neexee déjjati bâtiment boo fa defee luy aar ab ab puits bu ko dindee yi tamit doo ko mën a imputer doomu aadama bi mhm. waaye euh, nit ñi ñoo war a téye seen njaboot ci période yu demee nii tey ci diiru ñaari fan cent quarante sept mhm. millilitres euh, nee nañu ay centaine de millions litres la ñu jot ci diiru ñaari fan bu ñu sukkandikoo ci préfet bi di Amadou Diop euh, ndox moomu nan nga jàpp ne la ñuy mën a def ngir mu jóge fa waaw ndox bi li ñu ci doon gën a dimbali pour mu jóge fi mooy bassin wu Kër Ñang mais fi mu toll nii euh, bassin bi capacité bi ci nekk daa xaw a bëri ba mënatu ko yóbbu léegi Touba ca kanam nag euh, mi ngi ciy def ay xalaat mm-hmm. xam naa ne xalaat nañ ut ay euh, tiwo yoo xam ne nii tiwo yu mag lay doon yoo xam ne day day dañ koy dañ koy def moo xam ne ay kilomètres lay doon yu génnee ndox mi ci dëkk bi yooyu nag ay xalaat la rek yu amagum yoo xam ne nii dinañ ci waxtaan ak boroom xam-xam yi pour fexe ba évacuer ndox mi mu génn complètement ci dëkk bi dem ci zone yoo xam ne du fa mën a yàq dara donc loolu mooy solution bi nga xam ne ñu ngi koy euh, préconiser Eh, jàpp nañ ne bu ñu ko defee dana wàññi lu bëree bëree bëri ci ci jafe-jafe yi. sëñ bi Diouf assainissement dafa mës doon jafe-jafe ci ville bu Touba eh, li sax xam naa eh, ci la Touba ca kanam moo ko moo waral sax mu daal di ci andi moom it ay paaram pour mu pour mu saafaral ko mais tey gis nañ ne ba tey problème bi moo ngi fa nan ngeen ko jàngatee lu muy niru. waaw li muy niru rek mooy ñu xam ne problème mu assainissement euh, ak euh, inondation yi euh, c'est c'est du ressort de l'État état moo ko war a lijjanti moo ko war a saafara. pourtant promettoon nañ ne dinañ ci def ay solution nañ ko ci andi boobu ba tey ndax am na changement. li ma la mën a wax daal ci ci ci ci lu gàtt mooy lu ca Touba ca kanam defut gisuma leneen lu ca keneen def luñ mën a teg li ci ëpp ci liggéey boobu li coow lii bëri ak li wax ji di bëri li ci Touba ca kanam def moo tax sax ñeen ñi di ci góor fi mu toll nii mais Touba ca kanam moom mi ngi ciy béy waaram bu baax a baax a baax donte nag dinañ njukkal bu baax état ndax ay programme am ak ay mbiram dafa diis waaye daal Touba ca kanam depuis 2016 bi mu juddoo la attaqué problème ndox bi bi mu juddoo rek la njëkk ne ndox mi nekk ndaamaatu nañ ko dindi te bañ koy tàmbali sëñ du Kara moo yebal ay taalibeem lu mat trois cent treize taalibe ñun ñu song ndox mi donc Touba a kanam li gën a métti ci dëkk bi li kenn ñemewut toujours moom moom moom mooy ki koy ki koy ñeme moo koy sànjaafu ndax léppam sëñ bi la ci jiital léppam askan wi la ci jiital. Dougoulette sëñ bi euh, daal di teg loxoom euh, ci mbir mi su ko defee ñu andi ci solution tey ñu dégg cinquante millions ci koppar mu jël ko ngir ñu jàppale ñi nga xam ne ñoo yàkkule ci mbënd mi tey jii euh, boo doon comme yéen a ngi ciy liggéey ndax associé nañ leen ci boobule liggéey su ko defee solution bi doon lu ñu xalaatandoo lu ñu jëfandoo. waa xam nga Touba kanam li mu yenu euh, bëri na ci wàllu liggéeyu dëkk bi xam naa ne sëñ bi loolu la xam ba tax mu bëgg tamit ñi nga xam ne dañ fee nekk rek euh, te it war a def ci ci ci dëkk bi mu sas leen loolu sas lañ koy jàppee. kon associé ñu leen ci benn travail. ah kay ndax sëñ bi moom lépp lu mu def rek. Touba kanam moom mooy ne ci bopp bi mm-hmm. noonu sëñ bi jëfee noonu jël cinquante million def dafa wane aw yoon. donc képp koo xam ne rek ci njabootam nga bokk yow it da ngaa war a fexe ba jëf ci côté so société bi. Mm-hmm. luy alléger jafe-jafe yi. Mm-hmm. donc Touba ca kanam déjà mi ngi ci woon mais ba tey mi ngi wéy di dox ci loolu mi ngi fexe ndox mi génn. ci kër askan wi mm-hmm. su ko defee nag li ci des ci wàllu social tamit ñu ngi ciy waajal loo xam ne duñ tëb wax ko mais dañuy jëf nit ñi gis ko et justement ci projet yooyu la ñoo ngi dëgmal li nga xam ne moom mooy euh, màggal bi euh, weeru septembre bi la lay doon euh, ci njeexital bi ñu nekk ci jamonoy mbas Touba tamit ñu gis ne lii di ndox jafe na fa lool rawatina bu màggal bi jibee tey ji fan ngeen toll ci wàllum préparation ngir Euh, tamit euh, bay seen ci mbir moom bon il faut ñu noter ne Touba ca kanam moom euh, ay activité am àpp ko rek ci ay événement chaque jour que Dieu fait Touba ca kanam li muy joxe ci ndox kenn xamul nu mu toll mhm. dañoo yore ay citerne yoo xam ne nii ñooy sillonné quartier yëpp di fa maye ndox mhm. donc fi mu toll nii rek ñi ngi ci lu ëpp mille rotation yoo xam ne def nañ ko ci espace su deux mois yoo xam ne dañ koy maye ndox. ci barab yu fasanti ko yoo xam ne ay citerne la ñuy def di jox niñ ñi ndox parce que système d'adduction d'eau yi ñu jëloon di ko doxee nawet bi fi mu toll nii moo tax ñu xaw ci def tuuti euh, taxawane ci mhm. mais ñi ngi wër fi nga xam ne mënta ñàkk yëpp di leen may ndox. Mhm. terewul tamit système d'adduction bi ñuy def di xëccal nit ay tuyaux ñu ngi ci collaborer ak maaw di leen ci jàppale pour que mu mu mën a effectif mais ndox mi moom. ñu ngi koy maye ba fii ma fii ba màggale dañ koy wéy di ko def du taxaw mm-hmm. waaw ak mbas mi ak màggal bi ñu jub. waaw mbas mi de moom wax dëgg ñu ngi sant yàlla bu baax bañ defee journée xas xasaayit yooyu ba ñaan suñu borom mi ko yor ah, mu génne ko ci dëkk bi yaakaar nañ ne ñu ngi gis résultat yi donc loolu moom wax dëgg ñu ngi sant yàlla fii wàññeeku na nit ñi sax bàyyeetuñ ci xel fi mu toll nii waaw. d'accord Serigne Khadim Diouf bu Touba ca kanam ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf Elisabeth.